asalaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi ñuy seetaan ci leeral TV ak yéen ñi ñi faral di suivre ci leeral point alors bu ngeen ko gisee ba léegi ñun ñu ngi fii Ndiassane donc euh, daanaka euh, def nañ fi euh, ay heures yu bëri ngir découvrir li nga xam ne moo di dëkk bi naka noonu it découvrir li nga xam ne moo di histoire bi donc dañ ci ànd ak Serigne Mohamed. Khalifa Bekay Kunta donc mu wan ñu expliqué ñu itam lan mooy histoire Siyaan yi donc nees tuut ñu ànd ak moom ngir découverte boobu la. fii ngeen nekk mooy Siyaan yi. fii kii teen bi jeexital la ci euh, siyaan yi pour wane ni fii la Cheikh Abou Mamadou Kounti yi toje woon xeer wi euh, ci 1883 bi nga xamante ni bii dëkk bi am na problème mu ndox nga xam ni dëkk village yi nekk sunu ginnaaw ñoo amoon teen njaboot gi di fa di fa rooti ginnaaw biñ ne génn na bi mu génnee ñëw xool dongo yi ba léegi kenn taalalu leen ci la laaj lu tax ba léegi taalalaguñu dongo yi ñu xam ñu xamal ko ni problème mu ndox la ci leen nag dinaa tëju déeg sama borom incha allah am naa yaakaar ni bu subaa loola dina saafarawu bi nga xamante ni bii tëju na ci boromam bañ julli tàkkusaan ba pare ci la am mag ñoo xam ni ànd na ak ñoom bi mu àndee ak ñoom nag ci la dox jëm si fii nga xamante ni fii mooy siyaan yi fi ñu taxaw nii ci la ñëw nag ti bu suuf wax ci baat yi muy wax ci la ko sotte ci xeer yi ne leen képp koo xamante ni bii nag kii nga wala nga daan guddee tëdd man ngaa tëdd ndax kéemaanu suñu borom dina feeñ tey ci guddi gi fii nga xamante ni bii mooy Njaasaan bi yàlla attee nag bi ñu toogee ba guddi gi ci lañ nit ñi dégg doj yi éclaté bi nga xamante ni bii doj li éclaté na kenn ñi mu la génn mais bi ñu xëyee suba nag ci la ñëpp daw ñëw fekk fii ndox maa ngi ball jëm kaw ci lañ dellu nag ni ko doj yi toj na mu ngi jëm kaw ci la tibb suuf nag wax baat yi muy wax ni leen dem leen gën sotti ko dina dal te dina doon dex ngeen koy jariñoo diiru 31 ans yi nga xamante ni moom def na ko fi euh, mu ngi fi taawam di maam Cheikh al yi def na fi ak dex gi 15 ans bi mu fi jógee Cheikh di Amin mi nga xamante ni mooy borom taax mi def na fekk dex gi 44 ans ba 1973 euh, euh, dex gaa ngi fi bi nga xamante ni bii ci la Cheikh. Seydi Sidi lamin Al Kunti di ñetteelu xalifaam dëddoo jamono jamono yooyu nag yàggul dara ci la dex gi ci la dex gi fer waaw ci lañ toog nag ba ci yàgg ndox mi balaat yi fii nga xamante ni bi moom ngeen tiim ñu jekki-jekki ndox mi balaat looloo indi ñu def fi teen bi nga xamante ni bi mooy jeexital xam naa tey da ngeen a fekk mu ngiis mais jamono yëpp taalibe yaa ngi ñëw di ci tàng ay guttu ndax ndox mi secret ngi ci boo xamante ni bépp aajo bu nit am su fekkente ni bii jëfandikoo na ndox mi yàlla dafay saafara aajo boobu waaw mooy teen bi nga xamante ni bii tey tiim ngeen ko xam naa ni dañuy gën a avancé ci kanam su ko defee ñu wan leen doj yi nga xamante ni bii euh, mooy doj yi nga xamante ni bii nag moom moo tojoon ba waral siyaan yi nga xamante ni bii mooy fii ñu taxaw tey. asalaamaaleykum waaw yaakaar naa ni ñaareelu teen bi. ma ni ñaareelu teen bi moo nekk nii kii moom ba léegi defe naa ndox maa ngi fi moom kii ba léegi ndox maa ngi nii waaw kii mooy ñaareelu teen bi bi ñu njëkk a jot mooy premier teen bi mais ñaareelu teen baa ngi nii lépp nekk ci jeexitalu li nga xamante ni bi mooy teen bi nga xamante ni bi moom la fi Cheikh Abou Mamadou Kounti yi euh, bënnoon muy siyaan yi waaw ndox mi nga gis nag fi mu toll nii ñi jóge Mali su fekkente ni bii mës nañoo ñëw nañu ba mu dindiloo leen lépp li nga xamante ni bii kiiwul dugal leen ci lislaam da ngay gis mu jox leen digalu nañu tàng ci ndox mi bu ñu demee bépp aajo boo xamante ni bii doomu aadama am na ko dañ ko daan saafara ci ndox mi waaw ba léegi boo laajee ñi nga xamante ni bii ñu ngi jógee ci biti di ñëw ak ñi ci dëkk bi soo leen laajee ñoom xam nañu secret bi nga xamante ni moo nekk ci ndox mi waaw ñenn ñi dañuy ñëw gis nga leen di for xeer yi xeer yi daa am secret yoo xamante ni bii da ko cee def waaw yéen a ngi gis daje nañ fekk ñoo xamante ni bi ñu ngi ramasser xeer yi ñii ñu ngi tàng ndox ñi parce que fii daanaka lépp dafa nekkoon loo xamante ni bii bërëbu paj aajo la waaw kii mooy ñaareelu teen bi nga xamante ni bi lépp ci jeexital bi la nekk xam naa dañuy gën a yéeg ci kaw su ko defee ñu ñu gën a xool doj yi nga xamante ni bii moo moo fi nekk waaw mais keemaan gi moo ngi nii ndox mi boo ko gisee da nga naan boo ko xoolee danga nga naan setul mais ki mu fi tool nii ñi koy tàng dañ koy naan. muy saafara li nga xamante ni bii mu ngi seen biir yaram. kon daanaka ñenn ñenn ñenn ñi dañ koy sangoo. mën mm-hmm. nañ ne kon ñi faral di ñëw di def bari na. waaw fii moom daanaka taalibe yi nga xamante ni bii yëpp ñu ngi jóge Malek Burkina ak yeneen Siin ak Saalum fépp mm-hmm. dañuy ñëw fii mu nekk teen boo xamante ni guddi sax dañ ko fi root mm-hmm. ndox mi. waaw guddi sax dañ koy dañ dañ fiy root ndox mi mm-hmm. di di ko yóbbu daanaka looloo tax gis nga mm-hmm. teen bi daanaka bu balee tuuti rek mm-hmm. da ngay gis mu kiyaat ndax euh, guddi yi am na ñoo xam ne vingt litres la ñuy duy sax waaw dañ naan la ah, ba ma amee aajo sàngam ci laa ko faj waaw parce que du bokkaale du lenn mais nitu yàlla fépp foo xam ni mësa faa jaar boo jaayantee te yàlla tax yàlla mën na faa faj sa aajo waaw mais ndox mi euh, mooy sunu teenu zam-zam ñun <laughs> waaw taali bi da ngay gis ñoo xam ne dañ naan la xeer yi dama ci mhm. for 313 mhm. ñenn ñi dañ koy xooj mhm. dañ koy xooj ci ndox duñ ko bàyyi benn yoon fu ñu amoo aaja bu takk ni yàlla ñu ngi jaayante yow ci barke Cheikh Abou Mamadou Kounta yi mi nga xamante ni bii lu mu yor yow yaa ko may ndax suñ borom nag li muy xarale xare bindul koo xamante ni bii da ngay maye yàlla ku mu bind rek ñaankat nga kenn nay maye muy suñ borom kon booy jaayante ci góor yàlla da nga naan maa ngi jaayante maa ngi ñaan nga ñaanal ma yàlla waaw parce que nit ñaa ngi sukk fu baax di sukk ci xabru di ñaan te du nangu li ko waral mooy dañ naan maa ngi ñaan ci barke waliyu bi yàlla may ma nangam déedéet waaw ci seen tur waaw da ngay naan maa ngi ñaan nga ñaanal ma yàlla yàlla nee na kenn ay maye muy moom nee na keneen ku mu bind ñaankat nga loolooy waral taalibe yi di ci for ay 313 suñ ko ci foree da ngay gis ñu dem xooj ko ci ndox su ñu amee njàqare wala tawat ñu ne a ah, xaaral ma génne ko ne yàlla maa ngi ñaan li nga li nga xamante ni Cheikh Mouhamed Kounta yor na ko yaa ko may mhm. te man yaakaaruma kur Cheikh bu Mouhamed Kounta te sa jëmm ji dong yàlla moo tax ma yaakaar Cheikh Mouhamed Kounta yi mhm. te yaay faj aajo maa ngi ñaan nga fajal ma ko ci barkeem mhm. nee nañ saa yoo xamante ni bii sangoo nañu ko bu seen yaram tiisoon dañuy gis ni dañ koy day wàcc te 313 yi secret yi bu ci amee dafay dem ba li gën a sonal doomu aadama da koy dindi muy wàllu cat da koy toj waaw loolu benn la ci li nga xam ne moom la. waaw benn benn la benn la ci benn la ci tegtal bi. Mhm. Hmm? leen loon ci mën a mosal rek ci secret <laughs> waaw xam naa ni nag mhm. suñ leen toppee day dem ba ba yàlla yàlla bu di mhm. yàlla bu dee li nga xamante ni bii njëriñ la ñëpp ñëw di ko sàkku yàlla buñ ko mujj wax. waaw mais daal xam naa ni ba léegi jeexital mu ngi fi ci xeer yi ngeen di gis ak ndox mi waaw bépp aajo boo xamante ni bii moo xam tawatu biir la wala ju biti yàllaa ngi koy faj. Mhm. gis naa ci soxna soo xam ne sax dani ma damaa amoon jafe-jafe wàllu doom. waaw mhm. ah, mais ci ndox mi laa ñëw. Mhm. ziare tàng ko. wut ci xeer yi. mu ne ma dem ziare nag Cheikh bu Mouhamed Kounta. mu ne ma yóbbu ko mais mais yàlla dogal ma di ko utiliser. ci juróom-ñaari guddi ne ci laa yëg ni. ci ñeent fukki guddi. nee na ci laa yëg ni nag jël naa weer. waaw mm-hmm. nee na ma ni bërëb bi maanaam kon kéemaan la kéemaan mm-hmm. waaw bërëb bu kéemaane tey jii mm-hmm. moom ngeen moom ngeen taxaw waxuma dara lu dul ci waxtu waxtu wi parce que waxtu wi li fi yéeme mooy 1883 bi Cheikh bu Mouhamed Kounta di sanc dëkk bi bisu ajjuma la tombel tàkkusaani ajjuma la fi mujj la fi njëkk a julli te waxtu tàkkusaan lañ taxaw fii nga xamante ni bi mooy ci siyaar yi waaw kon nañu fas suñu aaju yëpp te xam ni lépp mën naa saafaru incha allah bisimilah ñu avancé waaw ñu ngi ñu ngi jëm ci xeer yi ma ni la boo dee seet Euh, loxo yi ci la ci la marqué woon. Mhm. ak tànk tànk yi. Mhm. loolu laa bëgg am na am na yenn bind yu ma faral di gis ci ci garab yeeg yu ni mel. waaw xam naa ni itam ci ci keemaan yi la bokk. waaw yooyu yëpp ci ci ci ci ci keemaan ci keemaan yi la bokk. Mhm. waaye ñu ngi ñu ngi yegg si ci xeer bi nga xamante ni bii. xeer bi ah, yaa ngi gis suuf si ci ne. am na ñoo xamante ni bii da sax dañ fi naafile ñaari rakk. waaw dañ fiy ñaafile ñaari rakk xeer yaa ngi nii parce que gis nga baaraam yi. loxo yaa ngi nii waaw loxo yaa ngi nii xam nga nag nee naa la xeer bi fi mu toll nii mu ngi ci téeméeri at ak fanweeri at ak juróom-ñaari at muy cent trente sept waaw waaw ñu lay wan cent trente sept def na ko fi waaw mais yaa ngi gis fii bërëb la boo xamante ni nit ñi dañuy ñëw suuf si nga xamante ni bii dafa wër dafa wër kii bi uhuh. dañ koy jël waaw ñenn ñi comme ni ma la wax dañ koy sangoo mhm. ñi ci des dañ koy denc mhm. bu ñu amee soxla mhm. ñaan ci yàlla dencat ko waaw mooy fii ñu leen indi mooy jeexital yi muy suuf ak ndox waaw mais xeer bi nga gis mu ngi ci cent trente sept ans waaw Cheikh Abou Mouhamadoul Kounti nga xamante ni tojoon na ko mu ngi ci cent six ans ci biir suuf waaw taawam bi nga xamante ni bi moo jur actuel xalif bi mu ngi ci quatre vingt treize ans ci biir suuf waaw kon nga xam ni daanaka lii. lii ci keemaan ci lii ci keemaan yi la bokk. Mhm. waaw tey jii comme euh, comme ni nga ko waxee nii maanaam est que euh, par rapport ak yu ni mel euh, maanaam taxawaay bi nga xam ne maanaam ni ñu ko war a garder ba kenn ku nekk saa yu war ko mën a visiter mu yomb ci moom mhm. tey jii maanaam accès bi xaw na xaw na yomb nii. waaw xam nga fi mu toll nii. Mhm. loo gis lu ne. lu baax jarul jafel lu baax mhm. jarul jafel mhm. ndax lu baax rek la nit di sàkku mhm. mais lu baax bu jafee dafay dem ba daanaka ki koy wuti sax dafay mujj tàyyal euh, xëy naa nag euh, ci fi nga waxee ci côté dégg nañ ko te lenn lu ci ne doon na loo xamante ni bi ñu wër xalifa bi gis nañu xam nañu te ñu ngi koy waxtaan ak xalifa bi su fekkente ni bi jox nañ ko ndigal bërëb bi dees na ko gën a yeesal pour ba nga xamante ni bi nit mën na fee fanaan nit mën na fee yendu loolu lépp ñu ngi ci Oh, incha allah ci kàttanu borom bi suñ ci jotee ndigal mhm. incha allah du yàgg dara mhm. mën nañ cee sumb ay liggéey yoo xam ne àdduna yëpp dinañ yëg ni mhm. sumb nañu liggéey fii nga xamante ni bii mooy jeexitalu siyaar boole ñuy soog a jóge ci li nga xamante ni bii mooy guddi salaay salaam yi bi amal yaakaar naa ni sant lay doon waaw ñaareelu ñaareelu xeer yi xeer yaa ngi nii bët yaa ngi nii gis nga bët yi bët yi ndox yi bi xeer yi tojee xeer yi nii la doon sànnee waaw xeer yi nii la doon sànnee waaw yi nga gis fi mu toll ni jeexitali marque loxo yi la waaw mais bët yi nii xeer yi nga gis yëpp. maanaam lu mu yàgg yàgg xeer lu mu yàgg yàgg aussi ak année lu mu mënti bëri bëri. Mhm. terewul boo ñëwee da nga fiy ba léegi xeer yaa ngi fi parce mhm. que boo nee seet nee la am mu ngi toll ci cent trente mhm. sept ans. cent trente sept ans ba léegi su fekkente ni bi yaa ngi gis. jeexitali bët yi nga xamante ni bi amoon na. di nga xam ni waliyu bi nekkoon fii. ku yàlla nangul la. ku yàlla nangul la parce que nee naa la bi mu sancee dëkk bi ci mille huit cent quatre-vingt-trois ba nga xamante ni bii def na siyaan yi mhm. yàlla atte ne génnul benn yoon fii mhm. def na fi 31 ans yoo xamante ni bii mhm. génnaatul dëkk bi li mu soxla yëpp fi la ko fekk Malek Burkina ñëpp wuy si ko waaw fii nga gis yëpp ay tool la woon mhm. yoo xamante ni dafa waroon siyaan yi mhm. ñuy bay ceeb di bay pataas mhm. lu ne dañ ko fi daan bay ci wàllu woowee sax gis nañ fay ay bisaab ak yeneen yu ni mel maanaam benn place la aussi boo xam ne dañ fay bayee waaw place la boo xamante ni bi ba léegi yàlla dogal na li fiy jóg ñi dañ koo soxla ndax dañ naan lépp saafara la waaw gis nga même mango yi ngay seen fi mu doon xale yi duñu xaar mu ñor waaw ndax yaakaar nañ ni dagg barkeelu la bu ñoree kenn du leen ci jiitu moo tax daanaka bu demee ba tàmbalee am doom mhm. da ngay gis doom dootu fi des mhm. waaw mhm. waaw ba depuis daal nga gis boo déggee ñu la histoire u siyaani njaasaan yi yaa ngi taxaw nag fi nga xamante ni bi fi la ko borom toje woon di Cheikh Abou Mamadou Kounti yi ci xeer yi la xëppoon suuf si nga xamante ni bi ñaanoon na ko yàlla nangul ko te kii li ci gën a xam nga léegi boo dee wax mhm. sax wax dafa nangam mhm. mais ninki nanka bi ma la doon wax sànq mhm. ni la joxoon na ko boppam ca gunjur ca Gàmbi ñaari doom ñu ngi woon fii ci dex gi bokk ci ñi koy garde waaw keroog bi nga xamante ni bii ñu ngi yeewi ku Cheikh Sidil Amin moo leen yeewi di borom étage bi mhm. moo yewi ñaari doom yi ninki nanka yooyu nga xamante ni bi mhm. bokkoon nañ ci ñi garanti fii ba nga xamante ni bi kenn mës sa loru ci ndox mi mhm. li dex gi rëy rëy kenn déggul jinne jommal na fa nit kenn déggul jasig laal na fa nit kenn déggul jaan matt na fa nit kenn déggul lenn loru na fa ngir yi nga xamante ni bi ñoo sécuriser woon fii ci barke Cheikh mu Mouhamadoul Kounti yi voilà mu doon li nga xam ne moom lañ leen indiloon tey ci histoire u Siyaanu Njaasaan yi Serigne euh, Cheikh Mouhamadou Khalifa Bekay Kunta doon ñëwaat ci li nga xam ne mooy sanc bi naka noonu itam njariñ li nga xam ne mën nañ ko am fii ci nga xam ne moo di Siyaan yi ñu ko jaajëfal bu baax ci li nga xam ne moom nañu dëbmale li nga xam ne moo di fii ci euh, lieu bi nga xam ne taxaw fi mu doon lieu bu solo parce que lu fi waaye ñaan bu soobee suñu borom euh, yàlla mën na ko nangu naka noonu itam parce que ñi nga xam ne ñoo ko sanc mooy ay ay wàllu yoo xam ne yàlla da leen a nangul ñooñee ñaan nañ fi itam ba seen njab njaboot en tout cas luñ fi ñaan rek yàlla mën ko nangu donc ñu koy jaajëfal bu baax a baax ci li nga xam ne indiloo nañ ñu ko ci li nga xam ne moo di histoire Siyaane yi di leen jox dig daje ci beneen découverte